fi may jàll parce que ñu bëri dañ naan sëñ as du nit dafay xool nit rek wax ko loo xamante ni ba mu juddoo ba léegi fa mu jaar mu wax la ko ak la nga xamante ni moom moo koy xaar boole ko di la wax gàllankoor rek li koy saafara dëgg la loolu suñ as jamono ji weesu na foofu <laughs> dëgg la dañoo dégg ni rëg-rëg dafa am ay jinne ci ah. làmb ji laay dikk ndax di léegi bi ñu fayee caméra bi wax nga ñu loo xamante ni jamono ji mm. Mm. man damaa dar sama génn eh, dëgg la ci làmb jooju laay dikk lan ngay wax ci rëg-rëg saa doon tax ñu bëri sax wax nag naan eh, ñoo ngi sant yàlla bu baax di wax ne Lamine waaw bu fekkoon yàlla cëram yi muy joxe. Mm-hmm. jox lim jox kenn ki lay jox keneen ki yonent yàlla Muhammad du doon imaamil mursalina du gën gi mbindéef mm-hmm. yàlla moo ñu bindalee waaye yemale ñu ku ne ak sa xaal ak sa maxaam dëgg la ku nekk sa bopp waaw bokkut ak sa moroom bopp mm-hmm. te yàgg naa di wax ne doomu aadama yi yàlla moo ñu fi bind gën a ñu ci lépp lu mu bind ngir Seydina Muhammad doomu aadama yi yàlla moo leen bind gënala leen ci mbindeef yëpp ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gënal bu ñu gënale si mbindeef yi noonu lañ gënantee ñun tamit suñu biir mhm. moo waral sëriñ di am taalibe nit di topp nit nit di sukkal nit nit di tarbie nit mhm. parce que yàllaa ñu bind waaye si biir loolu dafa am ci si biir suñu xaal ñun nit ñoo xam ne dañoo am bopp waaw rëg-rëg dafa am bopp nañ ko nangu. mbër bu am bopp la dafa am bopp te rooxaanam dafa diis ay xuddaamam dafa ñu am doole même pareil que Sa Thiès waaw boo leen di xool ci seen visage. waaw nga xool seen diggante bët yi ba seen bakkan yi ba seen gémmiñ ak seen xar kanam yi boo leen di xool te nga xam tuuti gis-gis ci doomu aadama. Mhm. non di nga xam ne ñii. ñitu mhm. kese. parce que doomu aadama dina dina dina dina doon doomu aadama. na donte mu ngi ci safaan sax lu ñuy wax bëre parce que nangu ko. Mhm. mais ci biir intérieur am yàlla def fa loo xam ne lu doy waar loo xam ne moom la yàlla mayoon yontu yàlla noox ba noonam yi jëloon tey di ko xeex xeexam bu réy bi dinañ ci dëkk ci kanam. waaw ba yàlla di jël gaal di ko yat di laploo noonu noon yi. noox yi mhm. lu waral loolu ba dooño doomam bi nga xam ne mooy kanxaan di ci dugg at jabaram mhm. ci di lap ci biir géej bi ba kanxaan ba muy daw di yéeg ci kaw montagne juróom-ñaari montagne ba maanaam ndox ba fekk di ko yóbbu loolu yëpp boo xoolee day wane ne yàlla dafa am ci biir mbindeefam yi ñoo xam ne da leen teg loxo waxuma ne ñeen tegul ñeneen loxo de waaye ci biir mbindeef dafa am ñeen ñoo da leen teg loxo ba ci sànq lañ yi uh-huh. def na fa suraat surtout namri mhm. am na am na teg na leen loxo parce que na leen suraat surtout nuux am na ay yonent la yonent ñoo ngi fi mais surtout nuux nuux am na ko boo xoolee ci biir nit ñi am na ñoo xam ne boo leen attaqué da daanu am na ñoo xam ne boo duñ sëriñ mais boo jëflanteeg ñoom ci wàllu baatit ba nga gis te xoolal noox tey ni ko yàlla protégé ba génnee ko foofu ba nga xam ne yàlla dimbale na ko ba muccal ko gaal li ma jaaxal rëg-rëg dafa am ay jinne borom bopp la mais nee na ni muy communiqué ak Sathiès Sathiès koo xabtal ba nax ko euh, en tout cas combat boobu waaw la dëgg man arbitre bi laa yërëm. wallaahi lazim. est-ce que du si maa ngi joxe une information très forte au niveau du CNG. nañ prudent nañ xool bu baax waxati naa nag bind leen lii. bind leen waa CNG. bind leen lii. arbitre bi ñuy jox mu war a arbitre diggante Reug Reug Sa Thiès. waaw foog mu am bopp. comme ñaari mbër mbëri. Lamine arbitre bu war a arbitre arbitre bi ñaari mbër yi te amoo bopp. waa non après polémique dina ci bëri. baa du fanaani bàq ya. ah du ma wax loolu de waaye daal xam naa ne. ñaari mbër yi seen pourcentage ci wàllu seen bopp dafa am doole. seen mystique dafa am doole. seen ginnaaw dafa am doole. wax dëkk neex yàlla bërë bërëb yi daal. waaw bërëb bu doy waar la boo xam ne man ci wàllu seet gis-gis. waaw ci yàgg seet ci wàllu làmb. man ba ma ko xoolee damay jékki-jékki ma xëy suba teel sa gis maanaam victoire ba ne si Sa Thiès. ma xëy ngoon di xoolaat gis mu fanaani si Reug ah moo xëyaat suba teel gisaat mu newaat si Sa Thiès affaire daal nii lay def day branché victoire bi day branché moo tax moo xam ne seen pour pourcentage si wàllu seen wàllu maanaam mystique. waaw dafa extraordinaire. seen pour pourcentage si wàllu hmm. seen bopp. ci hmm. ay xuddaam dafa dafa dafa tolloo. fan yi ba ñuy waxtaan yaa ngi naan làmb ji buñ ko bëree ci ci avant naaj bay dugg dina am hmm. ku muy arrangé buñ ko bëree ci naaj bi naaj bi bu duggee dina am. ku muy arrangé wallaahi lazim. te loolu moo la koy permettre nga euh, parce que yàlla yàlla moo bind ération bi. def ci ay jiixantal dara du hasard bind asamaana yi ñu doon ay escalier di ay étages yoo xam ne da ngay renforcer aadama dem ci euh, euh, euh, kaw su Yaxya Yaxya Insa nga dem ci Idrissa Aaron Moussa ba ci Ibrahim mhm. escalier la addina bi nii ñu bindee tamit planète bi nii ñun fii ñu ne mooy naasut naasut tamit dafa am ay jiixantal yi fi am yoo xam ne borom xam-xam bu ñu koy xool rek dañ koy gis làmp bu tàkk du làmp tàkk mhm. courant ba làmp bi waaw waaye lu taal lamp bi la si ginnaaw la la si ginnaaw la la courant bi courant bi taal lamp bi mooy mbootu lamp bi waaw doomu aadama tamit boo xoolee diggante euh, maanaam naaj bi ci biir wàllu biddiw ak im ni jox boo calculé dafa am ñoo xam ne bëccëgay seen bës am ñoo xam ne guddee seen bës ci làmb ji gis nga moo tax làmb ji ku ci wax gaaw wax te gisagoo ba jour combat xam bari heure lay lay tàmbale waaw dinañ leen vaar sëriñ maa ngi leen di alerter foofu nañ ci teey nañ ci teey parce que ñoom ñaari mbër yëpp ku ci dafay am ci côté guddi am ñoo xam dañuy am ci côté bëccëg ñoom ñaar te ku ci dafa am pourcentage ci wàllu bopp bu rëy. Mm-hmm. te boo xoolee ci wàllu kii bi il faut nga xam ba heure rek le combat bi démarré nga a xam. mais waaye lenn moom xamal naa la ko moom. waaw mooy ñoom ñaar seen combat bi moom. waaw non combat boo xam ne laal combat bu doy waar la. ci wàllu mystique daal dafa yéeme. ci mystique gisoo ne jàpp nañ ci kenn. non parce que seetaan nga seen korog seen open press bi ba ma la ko waxee sax yaa ngi doon reetaan. <laughs> wax dëgg euh, seet lu ma jaaxalee nii lépp ma daan yomb mais lamb wi daal. waaw dama gis pour pourcentage si ñaari mbër yi. waaw maanaam dafa doy waar daal tey damay gis kii tey suba ma gis kii. gannaaw su ma gis kii gannaaw su ma gisaat kii. maanaam ñoom ñaar nekk si même pied d'égalité boo xam ne ci côté boo laal ci ilmi nu yoom rek dafa am lu ñu fa bokkale. léegi nag kon bokkuñ ay sëriñ. non na waar parce que doo mën a xam mais l' daal. xam naa ne waaw waaw boo xam ne la daal moom man arbitre bi laa yërëm. oh. te bu demee ba guddi daal. waaw no vraiment gis naa ne daal combat bii non dina doy waar. combat bi daal mënoon moo sañoon tey ñu def ko bëccëg daal pour nit ñi mën a gis jël bu mu leer. waaw man daal loolu gis parce que combat bi ma gis daal non vraiment daal dafa dafa dafa dafa dafa kii daal day xëy fanaan fee bu subaa ma man daal la moom loolu laa gis. léegi mosuma xëy ni ci xaal bi dama taxaw maa ngi ma ne diw waaw mais bi yoon naa dafa dafa tàggatee ba lool partage bi dafa bëri lool. tey day fanaan fii soo mu fanaan fii kenn xamul lan la. mbir mi jaxasoo bokk nañ. nee nga na ci gars yi tey de. nañ ci tey na ci arbitre tey te nañ xool. arbitre bu koy arbitre arbitre bi ñu xool dem def ay sarax def ay ñaan xool arbitre ban arbitre la. pour arbitre boobu doon koo xam ne dañ koy nat ci wàllu xam ci wàllu bopp bopp du bopp bu rëy. <laughs> boo déggee ñu naan il a un cinquième sens très mhm. mooy bopp bi dafa rëy da nga ànd ak nit di tukki. waaw kuy am bopp ku am bopp mooy kan mooy kuy gént tëdd guddi di gént waaw gis lu leen war a dal ca yoon ba kiy gént gis ko wax leen ñu mën a taxaw def sarax mën a jàll loolu mooy bopp mais yaa ngi doon wax tamit ci supporters yi euh, nañ tey parce que euh, ce n'est pas la fin du monde waaw en matière de sport il y a un gagnant un perdu waaw waaw àddina moom noonu kese la waa da ngay xam ne da ngay gagné suba da ngay mais mbir mi dafa métti nag vraiment ci ñaari mbir yëpp sëñ As ni ngay waxee ni gis nga victoire bi de <laughs> non dafa métti parce que vraiment bal la uh-huh. euh, ndeysaan at lu ko daal yëpp waaw imaginel tey jii yàlla créé bu mu am imaginel loolu amaat day métti day métti ci imaginel booy bi relance bu mu am ñëpp ci yoonam doon koo xam ne maanaam karaw gi sax day bëre karaw gi Sa Thiès mooy rëg-rëg rëg-rëg kooku tey am defet non combat bu métti métti boo xam ne la man moo tax may la fii mu toll nii ci wàllu mystique. Mm-hmm. combat boo xam ne la il faut nga xaar ba arbitre ne prit ci une seconde asbran wax la kan mooy daal. la ilaha noonu nga ko yàgg defee moom. jërëjëf mais jamono ji euh, damay jàll. waaw ci fii ni nga xamante ni moom mooy politique. Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko Macky Sall ngelaw li sax dem dañ dinañ ko clamé ak Ousmane Sonko bu ñu ko mënee clamé mais damay dikk tey ci aji Sarr mi nga xamante ni dañ ni dafa amee wér-dik xel lan ngay wax ci loolu euh, maa ngi sant yàlla bu baax waaw ci àjjuma bi ñu nekk waaw ah sañ nga de euh, di wax ne Lamine waaw wax dëgg yàlla sut la nag sanc bi naa naasut si juróom pays yàlla yi la bokk ndeysaan euh, beneen bi mooy ay waay na ñuy bàyyi xel ne. Mhm. doomu aadama yàlla moo ñu sàkk. waaw yàlla rëbb na kuy yee fitna waxoon naa ko. waaw rafet rafet naa ko yàgg ci xale boobu. ndeysaan ne nga gis dafa am loo xam ne pourcentage u dayo waaw ci wàllu âge motugul quarante. Mhm. dafa yenn yoo xam ne bu la bu sa wàllu dund. Mhm. sooxe sooxe day am. mënut cee ñàkk mënut cee ñàkk parce que xale nga. parce que yàlla dafa bind mag bind xale. waaw ku ci ne at âge bi nga xam ne si ngay jot li nga war a jot. te maqaama dañ koy togg bu dee da nga xëcc maqaama xaal bi te tolloowul rek bu fekkee toll nga ci pour pourcentage boo xam ne 40 yi matagul rek soit da ngay am jafe-jafe ci wàllu dund. Mhm. soit da nga fiy jógee. waxuma da fiy jógee waaye l'essentiel mooy il faut ay mbokkam cadre ko waat. Mhm. il faut entourage bi cadre waat ko. Oh. il faut psychologue yi wax ak moom. waaw il faut ñu dimbale ko. parce que bakkan dafa fort. wallaahi wallaahi. maa ngi lance un message ci entourage am ñu dimbale ko jàppale ko. boole ko ay psychologue ñu indiwaat ko waxuma dafa feebar dara wóoruma ci xooluma ko waaye l'essentiel mooy. xale bi dafa laaj foog ñu soutenir ko. ndeysaan parce que xale la te commencé na dugg ci âge boo xam ne il faut mu war a am famille. Mhm. am jëkkër am ay doom lamin mhm. te loolu dafa bokk ci jigéen. te jigéen dafa toll foo xam ne période boobu foo tolloo day bëgg liberté d'expression. Mhm. te lépp dafa dafa xañ xale bi dañ dafa loolu dafa dafa tumarak ci moom dañ ko ko xañ te liberté de sport faax esprit bi tranquille pour me tranquille mm-hmm. cerveau Adji Sarr mi ngi mel ni jamono ji mi ngi prison loolu lay dund jamono ji il faut nit ki pour maanaam dundam man di dem waaw am temps de loisir ci boppam psychologue yëpp xam nañ ne nit day am temps de loisir ci boppam nit day am esprit parfois nit day am liberté mm-hmm. parce que boo xoolee traite négrière ni ñu defoon suñu maam yi tëj leen boo xoolee gis jamono ji nga xam ne traite négrière yi lépp jël nañ ko dugg si ko ci euh, euh, ñetti kii yëpp triangle bi ci benn triangle. waaw waaw ba ba ba jàmm amee dañoo fri mhm. waral gis nga yi tey seen freedom boobu ci lañ taxaw tey ñoom ñëpp ngay gis ñu naan time is money. waaw parce que le temps perdu ne sera pas jamais. Mhm. nit dafa bëgg di di saytu. nit dafa bëgg di di di dugg au fond. di avancé nit dafa bëgg di avancer. nit dafa bëgg di di am liberté. waaw di di free di noyyi air mais xale bi il faut. kon na nañ ko dimbali. nañ ko dimbali nañ ko dimbali cadré ko waxtaan ak moom ot ay psychologue wax ak mm-hmm. moom. Mm-hmm. indiwaat xale bi. Mm-hmm. wax ko ne ko yow ci société bi nga bokk. ndeysaan ci la bokk nag société bi bu ko defee mënti xel parce que vraiment am loo xam ne xajul sax ci mag sàkkanuma xale. jërëjëf kon loolu daal la waaye waaye tey doo tëjugum émission bi ndax ah. Ousmane Sonko. Mm. dëgg la yàqamti nga waaye dama koy jéggalu. waaw Ousmane Sonko tey nekk na ci cas boo xamante ni moom mooy moom mooy cible nguur gi mm. lan ngay wax ci kaawam digganteem ak Mame Mbaye Niang digganteem ak Adji Sarr teg nañ dossier bi digganteem ak Mame Mbaye Niang procès bi man daal euh, waaw procès bi le 16 la de. jàmm Sénégal laay nee nga jàng jàmm Sénégal laay ut. jàmm Sénégal laay ñaan. waaw je un Sénégalais. Lamine man dama am problème. Mhm. laa problème ban la am. lamin man lu xew maa nga ca lu xew mu ci duggul ñu boole ma ci. Lamine dafa xam ne bés dana jot réseau yi sa doon la ma gisati. ndax sëñ bi nag jamono ji kuy takk soxna sax woo sëñ bi ne ko sëñ bi damay takk xoolal ma lu ne. moo tax nag vraiment daal ba ci politique bi ba ci sport bi ba ci lépp moo tax daal vraiment man boo xoolee cible bu ma war a lancer ak message ma war a lancer mooy message fort mooy ñu jéem a ànd doon benn parce que jàmm at bennoo boobu mooy sama jàmm man. waaw parce que ci laay amee jàmm parce que quand bu ne rek day daw di ma dikkal. Mhm. kon man dama war a tëddee njaaxaanaay ñaan yàlla jàmm Sénégal. Ah. tey amee. man sama jàmm la parce que bu boobaa ñoom ñëpp di ma woo danañ ma woo ci jàmm. waaw mais bugguma ñu may woo ci fitna. waaw te bu fekkee man dama wax wax bi nga xam ne dafa xaw a tolloowul kenn ki nga xam ne moom moo moo xaw a gis ne dama far keneen day mer. waaw te jeune bugguma loolu parce que je suis un un homme parole te bëgg naa di sàmm sama kàddu. Mhm. moo tax daal. lu ma man maa ngi koy def pour réew mi am jàmm Lamine ci loolu lay xëy ci lay gont mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla daal réew mi mm-hmm. politiciens ñoom ñëpp ñu am jàmm mm-hmm. jàmm sax fi daay man iya ila ilaa yoomi diimi abat loolu daal laay ñaan yàlla jëf